fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm fii ci biir Dakar Média comme ni koy defee tous les jours di leen toppal actualité yi en temps réel ñu dooree ko ak l'affaire Mansour Faye Aminata Touré l'audience est prévue ce jeudi nii may waxee ak yéen nag moom Aminata Touré ma nga ca tribunal bu Dakar Sarr 3 comme ni nga xamante ni rek noonu la ko xamlee woon ay sympathisants ak ay militants de Mimi 2024 ñu mobilisé wu massivement ñëw gunge ko euh, ci li nga xamante ni rek moom mooy confrontation bi mu nar ama am ak Mansour Faye maire bu Saint-Louis daf ko porté woon plainte nag ni rek Aminata Touré daf ko diffamé par rapport à sa gestion de 1000 milliards Covid 19 tey daal lañu fa ñu fas yéenee jàkkaarloog uh, ñoom ñaar bu ñu fa jugee itam dañuy àddu wax ci li nga xamante ni rek moom mooy ñeel wàllum népotisme bi nga xamante ni rek askan beeg opposition bi dañ doon wax naan nguur gi falul moom lañ doon ah, xeex ba fi ah, Macky Sall ah, nekkee woon ñoom ñu ñëw di def la même chose Serigne ngay Diop ministre bi ñu dénk wàllum industrie commerce moom na dañ ko tuumaaloon ni dafa recruter plusieurs de ses proches doom ak jarbaatam ak li nga xamante ni rek moom mooy gendarme moom Serigne Gueye Diop nag daal di nay génn def démenti ci wàllu woowule démenti nag bi nga xamante ni def na ko dafa daal di fësal benn arrêté. daal di présenter les nouveaux membre de son euh, cabinet ministériel waaye nag bu ñu sukkandikoo euh, ci boobule euh, publication wu liste gisuñu ci nag benn famem boo xamante ni rek bokk na ci li nga xamante ni rek moom mooy cabinet muy ay demandes yoo xamante ni nag daf ko andi loolu itam moom ministre bi yor wàllum transport di El Malick démb daal dina ci àddu fële ca TFM ginnaaw biñ ko ci laajee nee na li nga xamante ni dañ ko ko tuumaal dafa jël euh, famem njabootam daal di leen euh, dugal ci cabinet loolu dara du ci euh, dëgg te porté na plainte boo xamante ni rek mi ngi en cours ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo koy salteel ndaxte rek bi la opposition amuñu benn alternative lu dul rekk di salteel ay góor ak sos ak wax loo xamante ni rek dara du ci dëgg moom El Malick Ndiaye ba tey mooy wax nee na nag lii faaw ñu dakkal ko plainte daal daal di porté contre loolu àdduna tam ci li nga xamante ni rek moom moo fi amoon ci tabaski bi ci Dakar dem dikk bus yu mu ñëwoon yóbbu ko ci bon maraîcher pour mu yóbbu euh, ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo waroon dem julli ji moom nag lu mu ci teg du leen nee na askan bi euh, ñoo leen fi teg te saafara askan bi loolu moom mooy seen euh, priorité moom El Malick Ndiaye daal mu mel ni la mu defoon daal bu doon à refaire daf koy defaat leera yooyu la ci indi waaye nag daal dinay tontuwaale imam Dramé Dramé mi nga xamante ni dafa toog euh, ci plateau daal di koy euh, euh, cité directement ne moom El Malick depu depuis ba nu falo ba tey du ñu jël seen téléphone jigéen ñi dong ñoom ñoo leen mën a jot moom nag El Malick Ndiaye nee na sant na yàlla maanaam daal bu fekkoon. Euh, dañoo ne El Malick Ndiaye foo ko woowee euh, jot ko sénégalais yi mën a tiit ci ñoom ndaxte rek euh, sénégalais yi dañ leen a yónni yàkkamti leen ku nekk rek sa dayoo ak sa capacité de réflexion rek ngay waxee waaye nag ñoom lu ñu mën daal ñu ngi koy def ci wàllu wuyu ak rappeler waaye nag mënuñu rappeler ñëpp mënuñu wuyu ñëpp ndaxte rek jamono ji liggéey bi daf leen tënk bu baax a baax waaye nag du beew du yëg dara lu dul rek nekk ci liggéey tontu yooyu daal la indi euh, comme leeral moom El Malick Ndiaye euh, ci yooyu nga xamante ni rek euh, ñu ngi ko koy waxal. ñu àddu wax ci leneen france au chef de l'État moom Ahmed Suzanne Camara mujj nañ ko placé garde à vue moom nag ginnaaw émission boobu nga xamante ni génn na ko yëkkati ay kàddu teg ko ci ndoddu président de la république ak son premier ministre Ousmane Sonko ci la procureur daal di autosaisiru ñu daal koy jëli moom Ahmed Suzanne Camara nag ñu ngi xamal ni daal arrestation wam looloo ko wundu waaye nag ba nu koy enquête dafa ni rek du du wax tànk avocat wam euh, teewul moo nag bu na teewee ñu ngi xamal ci information yi moom Ahmed Suzanne Camara lépp li nga xamante ni rek teg nañ ko ci ndoddam ni rek moom moo ko euh, offensé chef de l'État nangu na lépp jamono ji nag membre du réseau des enseignants de la l'APR ñu ngi koy toppee offense annonce au chef de euh, l'État, acte de nature à jeter le discrédit euh, sur une institution de la République et à inciter les citoyens à enfreint les euh, lois jamono ji nag loolu lañ koy euh, toppee moom Ahmed Suzanne euh, Camara ñu àddu ci réaction bi nga xamante ni rek Seydi Gassama représentant d'Amnesty International du Sénégal daal dina ko yëkkati ci garde à vue bu ñu teg Ahmed Suzanne Camara moom nag kàddu yi nga xamante ni wax na ko moom mooy les dérives dans le débat publique yi nga xamante ni dañ ko qualifié d'offense au chef de l'État de diffamation ou de injure euh, publique warul entraîner ay peine de prison moom daal gis-gis boobu la ci daal di am ba tey Seydi Gassama a insiste insisté na euh, sur la nécessité de poursuite euh, civile et de paiement de dommage et intérêts ndax na mu ngi fàttali principaux candidats à l'élection présidentielle de 2024 noonu lañ ko éliminé à cause d'une condamnation à une peine de prison avec sursis pour diffamation moom daal loolu la ko daal di gisee moom nag jàpp na ni daal les dérives dans le débat publics nag te warul nekk loo xamante ni rek day entraîner ay euh, penu euh, prison comme situation Ahmed Suzanne euh, Camara mi yëkkati ay kàddu ca benn plateau mu jural ko nag garde à vue ñu àddu wax ci li nga xamante ni rek moom la Pape Alé Niang DG bu RTS dal di def daal di recruter Asma Khadija Sy bi nekkoon Sen TV indi ko RTS nag te jur na nag ay vague de réaction ñoom ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy ay journalistes yi nekkaloon fii askan bi ñoom nag jàpp nañ ni euh, maanaam daal euh, mbir moomu ànduñu ci euh, benn yoon gis nañ Coro Mandela génn na daal di attaqué gis nañ aussi Mansour Diop génn na daal di attaqué gis nañ aussi itam ñi nga xamante ni daal ñoom ñoo nekkoon ci projet bi yëpp ànduñu ci loolu ba ci rek Ahmed dara moom itam nee na Pape Alé Niang nitam la xaritam la dañuy déggante téléphone tout le temps mais nomination bi daal àndu ci euh, euh, euh, benn yoon ndaxte Asma moom gis nañu woon position bi nga xamante ni amoon na ko ci projet bu Pastef ak kàddu yi nga xamante ni rek daf ko doon prôné à chaque fois rek buy wax danaan ñi nga xamante ni accès gunu ci pouvoir bi di yàq Sénégal bis bu si pouvoir bi dañuy dëbb li nga xam ni rek moom mooy réew mi maanaam daal musul ànd ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy waa Pastef à chaque fois rek safaan ba képp rek lay wax ci ñoom kon tey Pape bu ko jëlee daal di koy euh, euh, yóbbu RTS ñoom euh, ñaawlu ñaawlu nañ ko bu baax a baax te gis nañ aussi itam ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy waa Pastef en général ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon défendre projet bi d'accord ñu ci asma fële nga xam ne rek moom mooy ca RTS. ñu ci li nga xamante ni rek moom mooy immigration clandestine gis nañ nag mu ngi woy ba tey fii ci Sénégal di gën di continuer cette fois yi nag ay naufrage fële ca waaxu Mauritanie. Euh, ñu ñuy xamal ni rek ay sénégalais ña nga ca woon ay gambien ak ay malien euh, bato bi nag mi ngi déparé fi nga xam ni moom mooy euh, Gambie utali fi nga xam ni rek moom mooy tugal bu nu sukkandikoo nag ci RFI ñu ñuy xamal ni rek vingt cinq personnes daal dinañ ci ñàkk seen bakkan ak ay centaine de personnes yoo xamante ni nag jamono ji dañoo réer mër ci géej bi ñu leen di wër muy catastrophe yaakaar naa ni sax gis nañ vidéo yi viral ci internet bi ci ay nit yoo xamante ni rek nii lañ leen doon génnee ci ndox mi ñàkk nañ li nga xam ne rek moom mooy euh, seen euh, bakkan ñu àddu wax ci plainte contre X bi nga xamante ni rek euh, njiital ay ASP daal na koy def muy capitaine Touré contre Anita Diop mi yor compte Facebook am daal di koy diffamé ne dafa rek détourné ay fonds publics pour rek mën a jënd terrain bu trois cent mètres carrés fële ca cité Biagui moom capitaine Touré nag dafa daal di porter plainte contre X ndaxte rek jàpp na ni li nga xamante ni Anita Diop mi ngi koy def ci compte euh, Facebook am pendant des euh, années euh, di diffamer ay nit di waxal ay nit ay mbir yoo xamante ni dara nekku ci dëgg il est que nag ñu arrêté daal di découvrir compte boobu noonu kan moo làqu ci ginnaawam ba tax na rek moom daal porte na plainte ndaxte rek nee na kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko maanaam dafa jeté discrédit ci moom te rek mun na ko jural li nga xamante ni rek moom mooy ay mbir ci famille ñi nga xamante rek ñoom looy lay ñoom lay euh, liggéeyal plainte contre X daal moom la daal di euh, déposé euh, contre Nita Diop moom capitaine Touré. ñu àddu wax aussi ci li nga xamante ni rek moom mooy polémique ci solu deuxième dame bi di ab Absa Faye di. ñaareel ci le président Bassirou Diomaye Faye mi ko gunge woon fële ca Paris ci Jeux olympiques ya jamono ji nag moom lañuy ñuy waxtaanee ci internet bi ndax rek nee nañu sac bi mu yor marque Celine la Euh, trois cent cinq euros lay jar buñ ko xaymaa suñu ay koppar mi ngi toll ci deux millions huit cent cinquante mille euh, quatre cent euh, vingt sept chaussures yi nga xamante ni itam sol na ko marque Laboutin la sept cent quarante cinq euros buñ ko xaymaa mi ngi toll ci quatre cent quatre vingt neuf mille francs jamono ji nag moom la ñuy waxtaanee ndaxte rek nee na mënuñoo wootee rupture ne askan bi moom moo leen tax a jóg ba noppi rek soxnay Bassirou Diomaye Faye di sol ay saago saagu prix de deux millions ak ay dàll yoo xamante ni rek ça coûte prix de 500 euh, 000 euh, francs CFA. ñu tëjee ak Guy Marius Sagna euh, fële ca parlement de la CEDEAO benn député congolais te jamono ji moom moo ko menacé pour une pétition de destitution au parlement de la CEDEAO communiqué bi nga xamante ni rek touche pas à ma constitution muy benn front. ñoom nag jamono ji daal dañ koy euh, soutenir bu baax a baax ndaxte rek dañoo condamné euh, euh, menaces yi nga xamante ni rek préféré nañ ko proféré nañ ko au parlement de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ci ki nga xam ni rek moom mooy le député sénégalais euh, Guy Marie euh, Sagna muy euh, benn projet de pétition de destitution lancé par un député togolais front boobu nag jàpp nañ ni daal le député sénégalais jamono ji nekkeew fa lu dul rek défendre les peuples de la communauté au sein de ce parlement particulièrement le peuple togolais qui exprime sa reconnaissance au peuple sénégalais ñoom jamono ji daal ñu koy soutenir bu baax a baax mais Guy Marie Sagna daal bu nu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko nee na moom soxlawul euh, ku ko euh, euh, soutenir ci pétition boobu nga xamante ni benn député congolais def na ko à son égard amis chers fidèles internautes fii la ñuy yem ak yéen ba suba incha allah ci yeneen actualité